di l'opinion publique ah un mensonge médiatique et politique mu nekk parmi les dix livres yi nga xamante ne ni bon je dirais même dix livres incontournables yu ñu recommandé par euh, comme of Africa pour les euh, pros de la communication mhm. loolu ndamu Sénégal donc moo tax félicitation et également ban sentiment moo la animé ak lan mooy euh, solo si lii ñu la jox waaw solo si mooy xam nga mbir boo koy def déjà passion moo tax nga koy def. tout à fait mais passion bi su si fekkee reconnaissance. Mhm. day am solo parce que booy yëngu si benn mbir. effectivement bala muy neex ñi si gën a xarañ euh, reconnaître sa liggéey bi ngay def. effectivement euh, rentrée bi. comme sa Africa ñoom benn euh, organisation communication panafricaine lépp luy média communication si làkku tubaab anglais dañ ciy yëngu. macha allah léegi chaque rentrée ci wàllu communication dañuy distinguer. fukki livre yoo xam ne moo marqué képp kuy nekk si milieu communication nga nekk professionnel nga nekk étudiant nga nekk ab euh, académique war nga ko war nga ko war nga ko gëstu mhm. li yàlla def ren si rentrée bi sama livre boobu l'opinion publique un mensonge euh, médiatique et politique macha allah bokk si dix yi nga xam ne loolu la ñuy wax les dix incontournables. Mhm. nga xam ne pour les pro de la de la communication. donc xam nga chaque fois aussi il y avait beaucoup de <laughs> fierté. loolu mooy parce que nit tamit ki la mën a natt. mooy ki bokk yow li ngay yëngu. mooy say père. <laughs> waaw say père nga la mën a yëngu. li si gën a neex mooy du kay du Sénégal rek mais fépp fu ñuy làkk euh, tubaab si àdduna bi. ah fépp fu ñuy làkk tubaab la ci àdduna bi. voilà dañuy considéré. ah loolu c'est. Euh, lii bi fa génn si euh, at bi wala at yi mujj yi nga xam ne marqué na. Euh, ci ay pro de la communication marketing digital confond loolu ndamal Sénégal voilà ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy discerner donc moo tax fierté la bokk mhm. si chaque fois euh, top 10 boobu ñuy génnee chaque rentrée chaque rentrée top 10 bi moom mu bokk ci donc à travers livre bi kon nag ma leen koy recommander. Ah, après xanaa di ma wax fu ñu koy jaayee ak yooyu noonu parce que lii euh, fierte sénégalaise la fierté wu réew mi la fierté Afrique la en quelque sorte ndaxte nee na du dëkk yi nga xam te ne rek ñoo nekk Afrique mais yi ñuy làkk tubaab donc loolu lu am solo la donc doyen toutes nos félicitations par ma voix Sénégal 7. Ah, mu ngi lay féliciter te xam naa tamit sama internautes yi yéen tamit féliciter leen ma ko ngeen bind ko ci commentaire yi joxal ma ko ay cœur parce que euh, yii la ñu war di di promouvoir di ko waxtaanee yu yu am solo yi su ko defee ndaw ñi ñu mel ni man itam jéem a góorgóorlu ba jege leen xam naa ne romb leen mënul nekk wala dina jafe. donc ñu jege leen rek jërëjëf. mën na mën na nekk. Ah. <laughs> maa ngi sa ginnaaw loo gëm rek bu nekk. <laughs> incha allah <laughs> alors doyen ginnaaw loolu euh, donc ma dugg ci actualité bi nag. Uh-huh. waaw l' actualité est bien fournie. temps yi dañoo gëj toog nag. très fournie kay très bien fournie. ah bi ci nekk mooy bi may njëkkee mooy six mois après ah euh, l'arrivée de du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir ah ñu doon def lu rapport jëmale ko ci wàllu finance publique yi mais rapport bi li liñ ci wax c'est inquiétant euh, lan la ñu mën a wax ci ces révélations doyen bon d'abord benn mooy rapport bi révélation yi am na bette comme amul bette ah. am na bette Mhm. parce que ñëpp euh, amul bette parce que ñëpp xamoon nañ ne. Euh, nguur gi fi jóge Macky Sall jiite ko bari na ay tooxi na te loolu du sago moo tax nit ñi wax ko mais gis nga rapport yi fi nekk yëpp tey soo xoolee tous les rapports yi ñuy traité yëpp si nguurum la woon <laughs> waaw yu bees yi ñu koy traité mais lu si ëpp li ñuy wax si nguurum la. Mhm. donc loolu moo tax euh, loolu du la xaw bett mais dina la bett parce que ampleur bett ampleur bee tax. parce que li naan dafa jéggi euh, dafa jéggi dayo mhm. loolu si dëkk bu sérieux état bu sérieux loo xam ne doo ko mun imaginer. Mhm. Euh, ware na ne manque de rigueur bi ñu doon gérer suñu finance euh, publique. Mhm. donc manque égard aussi bi ñu am si askan bi parce que soo xoolee xaalis bi ñuy luubal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp defe naa lu si gën a ndaw rek. buñ ko tegoon si coono askan bi. Mhm. lu bare bare dina leen euh, teggeeku. moo tax souvent soo gisee xaalis boobu da ngay jaaxle buñ nee Sénégal est un pays pauvre waaw Sénégal c'est pas en fait c'est pas mhm. ñi koy gérer ñoo koy ndoxloo maanaam li ñuy wax ñoo koy appauvrir donc Sénégal c'est pas un pays pauvre c'est un pays appauvri par koy gérer maanaam ñi koy gérer ñooy daa mel ni nga am malade euh, dina naan bi. Mhm. moo tax waxoon naa si affaire Covid bi bi muy am bi ñu détourné fonds Covid bi muy 1000 milliards yooyu ma ne leen loolu ak anthropophage yi ñoo yem. c'est-à-dire mhm. anthropophage yi mooy kuy lekk nit parce que soo xolee temps yooyu ñu naan diw dee na parce que amul oxygène diw dee na parce que amul lii pendant ce temps ñu ngi tong-tongee ay milliards loolu ak lekk nit benn la. amul mhm. différence loolu laa mhm. wax anthropophagie. donc soo xoolee ampleur yi di nga xam ban type de gouvernant ñoo ñu doon euh, ñoo ñu doon ñoo ñu doon jiite at yëpp. soo xoolee li ñuy li ñuy luubal yëpp yëpp loolee dinaan dugg na fii génn fii amul trace amul preuve xoolal loolu bu dugg duggaloon si askan bi rek. waaw dina mën a changer yu bari bari bari bari tey ñaata école ñoo nekkul daal de bonne condition ñaata dëkk encore boo dem soin euh, femme buy accoucher da ngay jël charrette man mi dem si village souvent. da koy gis. te benn milliard nest pas mooy. bu koy wax day mel ni millions. xam nga soo am ñu koy wax day nekk comme illusion mais boo ko gisee. nga xam ne dëkk bi am na dëkk yoo xam ne amul lumière. Mhm. soo fa demee par exemple mission ay yenn villages yi pour dem charger téléphone bu jeexee di nga def 5 6 7 kilomètres. Mhm. pour charger waat. Mhm. donc xoolal loolu nga dégg tooxu doon yi yëpp c' que à la limite da lay euh, bi nga am mooy sentiment de révolte. Euh, sentiment de révolte mais heureusement que nguur bees am na. te déjà je pense que loolu c' bien euh, neexul wax. parce que dañu dañ naan wooye suñ ko waxee les bailleurs vont plus avoir conscience mais moi je pense c'est pas le cas mais doyen foofu noonu yow en tant que analyste doyen ndax da ngaa jàpp ne écartu chiffres yi ñu jox ah euh, c'est fait intentionnellement wala dafa nekk loo xamante ne nii bon de la part des autorités sortantes wala dafa nekk une mauvaise gestion involontaire non mauvaise gestion involontaire est-ce que mauvaise gestion involontaire que ko wax parce que chaque fois xam nga loo xam ne xam nga lekk ay milliards Mhm. donc lekk eh, toog imaginer même ay million boo toogee di imaginer fi si mu dugg doo ko fay génnee. Mhm. ba du bàyyi trace loolu mëntuñu wax eh, involontaire. Ah involontaire mooy nga juum. nga juum si ay quelques millions. Mhm. mais du benn dossier ay dossier ay dossier ay dossier la te bu nekk milliards yi moo jéggi dayoo. xam nga doon un milliard deux milliards mais ay jéggi dafa jéggi dayoo. donc loolu. trois mille moo tax liñ ko liñ ko wax tamit. porter ko à la connaissance du public euh, dal na xel. c'est c'est bien quelque part c'est bien parce que même pour les bailleurs euh, moi je pense que du ro du yàq dara si euh, réputation Sénégal parce que Sénégal dëkk au niveau international dans les marchés et partout bu les lay juger du si benn fait les lay juger dañ lay juger si sa tradi sa tout tout trajectoire ay paramètres yu bëri Sénégal c'est un pays quand stable. lu jafe la si jàmm bu nekk nii Sénégal aussi am na historique Sénégal am na lu muy représenté si si àddina bi mhm. soo xoolee même président Diomaye ni ñu koy accueillir au niveau international li nga xam ne nit ñi am nañ cofeel ak respect si si moom te chaque fois dina woon a gëdd boo xam ne loolu Sénégal lay sigil mais kon kon ku mel ni Mal Diagne ma gis ko mu ne dernière sortie bi mooy bu Ousmane Sonko ci wàll wi mu ne mu ne dafay affoler les marchés kon dafa. non bon ça peut être xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga euh, koo xam ne chaque fois euh, yaa ngi procès en diffamation est ce boo waxee mën nañ si porter crédit dafa am ñoo xam ne man seen wax du ma si discuter. <laughs> parce que amatuñu crédibilité boo xam ne même sooy soo siy commenté. da ngay dem dans les caniveaux. parce que xam nga dafa am xam nga mun nañ comprendre. yow yow sénégalais nga. yow citoyen nga c'est-à-dire mun nga gis loo xam ne normal lu nga wax ko. sans par parloo parce que citoyen nga. mais daam ñoo xam ne bu ñu waxee dafa am lu ñuy yëg si a wax bi. c'est-à-dire benn rancœur crypto euh, personnel. benn haine boo xam ne. benn animosité boo xam ne benn nit boo ko waral. li naan un chat faut l'appeler un chat. effectivement li ko waral mooy Ousmane. Sonko. moo tax des fois dama naan euh, ñi koy attaqué ñëpp foog na ils lui font mal. Mm-hmm. ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy souffrir ñoom ñooy souffrir en réalité. Mm-hmm. <laughs> parce que xam nga nit kii boo ko yéene lu bon. Mm-hmm. te nit ki li ko yéene yéene lu bon yëpp moom mi ngi am li mu bugg. xam nga yow yaa ngi di xalaat. di wut ay pexe même xëy na xalaatu la. xalaatu la mi ngi siy xool nu muy gën a jëmee jëmee kanam. donc genre culture yooyu. mënoo ko mënuloo am bien fondé et comme ni ma la wax. Mhm. affaire les marchés c' vrai que y' a des instants yoo xam ne ça mais le fait de le reconnaître. Mhm. ne lii moo am. et puis man gëm naa ne même avant ñu koy wax la plupart de partenaires financiers et des bailleurs étaient au courant. avant ñu koy wax waaw man gëm naa loolu. que peut-être au moins am na si tuuti luñ si luñ leen si mosal jox si idée parce que lii doo tëb que aussi état. dafa am ay piliers yoo xam ne moom moo lay reposé. Mhm. donc xëy am nañ ay précautions yoo ne jël nañ ko xëy na am nañu si waxal wala am nañu si concerto am na et puis le fait nga waxoo c'est bien et puis comme j'ai dit dëkk kenn ko jugé si benn fait c'est sur son si sa trajectoire son parcours historique ak stabilité am si loolu ngay apprécier pour juger ko mais benn fait du tax nga mais su ma déggee ay milliards yu bëri ñu ne ma secret défense ma dégg